man am naa ay xalaat. Mhm. yu ma si am dama ne aujourd'hui lan la ñu war a mun def créer des espaces de vente communaux parce que tey ambulant boo gis si Sénégal si benn territoire la nekk. Mhm. territoire boobu benn commune la tey gis naa ni nga annoncé yaa ngi wax. entre état ak collectivité yi mais man pour man état du parce que collectivité yi mooy état. Mhm. état moo jël si prérogative am. ne collectivité yi doxalal leen. mais mais mais affaire bii nii xew. dañ ci gis nañ parle pas le même langage muy l'État ak les collectivités voilà. pour le cas présent tout à fait mais lu si am solo Modou Anta man moom laay wax toujours nit yi mhm. aujourd'hui on peut discuter cent ans sur ce qui s'est passé mais lu nu war mooy essayer de voir fu mu toll yan pexe nañuy mhm. mun trouver dafa naa instant bi toll nañ foo xam ne dañoo war a parenthèse ñu ne kat ah, jot na askan bi ñu taxaw ci seen soxla comme nu ko état bi amee xalaat boobu. Mhm. donc aujourd'hui tey su ñu créé ay espace de vente communaux te du nekk. espace yooyu nu mu nu muy mel commune bu nekk day am fu ñu leen déjee. koo xam ne fa la nekk les ambulants de la localité. na xam nga sànq tudd naa ay paysagistes tudd naa urbanistes pour ñu xool Sénégal am na nu muy bindoo parce que commerce dafa bokk ci suñu ADN. Mhm. aujourd'hui dañ nit yi ils aiment bien parler de Paris de Washington de Chine de Dubaï mais nous on est Dakar on est le Sénégal ouais. on a notre vécu dañoo am suñu dundu bopp dañoo war a toog nag xool ñun suñu réew nu mu bindoo ak modernisation yu bees yu nekk di réew mi di dox état bëgg ko dafal nu toog nu créer ay espace su ma waxee espace de vente communaux mhm. mooy par exemple mun nañ ne tablier yi mun na leen aménager loo xam ne day day day uniforme day jekk taaru bokk si suñu gis-gis mhm. mun nañ ne ambulant yi pourquoi pas wut ay espace dédié yoo xam ne ay aménagement de base lay nekk mais est que aussi avant loolu ambulant yi duñ dellu ci li taxaw ñu naan ambulant di dox di circuler duñ déranger kenn mais maintenant dañuy dox tuuti xëy na marchandise bi gën a bëri ñu taxaw fenn maanaam wala ñu changer tour bi bokk ñu def leen ay vendeurs yoo xam ne dañu xam ne carrément ñii ils sont officiels lii la mooy seen liggéey dañuy toog fii. waaw justement foofu mhm. laa bëgg jëm moo tax ma ne la aujourd'hui ces vendeurs ces ces mooy ambulant yooyu nii wax. Mhm. bëgg nañ yokk bëgg nañ progresser. bëgg nañ seen seen nekkin. gën a jëm kanam. parce que mhm. koo si gis daf lay ah, man su ma amoon lu ma daf leneen. Mhm. damay daf mais nit soo koy dimbalee du Anta soo nekkee si kaw étage bi mu nekk si suuf. nga taxaw di ko ne eh yow kaay ma dindi la c'est pas la bonne solution. solution mooy lan yow yaay wàcc. Mhm, fekkee ko fi mu nekk ba fekk fu mu nekk nga maasoog moom. nga jàpp si loxoom yéeg loolu ban avantage lay nekk mooy aujourd'hui on a le devoir de réorganiser euh, cette cette jeunesse euh, qui travaille dans ce milieu mooy nan leen organiser espace de vente yooyu day nekk lu basique mm-hmm. parce que tey suñu tabaxee ay centres commerciaux centres commerciaux ñëpp xam ne ne soo amul ay millions mm-hmm. doo am magasin day nekk ay ay espace yoo xam dañ koy aménager mu am ay pavage am électricité am cadre de vie am nangam xale yi ñu waxtaan si ak ñoom xool nan seen liggéey di gën a mm-hmm. comme ça nous sectoriser organiser leen pourquoi pas par exemple ku soxla affaire u na euh, euh, fëgg jaay. par exemple ah yow xam nga foo leen di fekk. ku soxla article portable informatique xam nga foo leen di fekk ku soxla lekk loolu sax dafa war a ñëw ba suñu marché yi. Mm-hmm. parce que léegi da ngay gis marché. par exemple exemple bu banal la ah, marché poisson fëgg jaay baa ngi fa. ah oui légumes légumes et cetera mm-hmm. loolu mënul nekk. Mm-hmm. il faut nu ne léegi dañuy sectoriser. suñu secteur lii ku soxla jën. population bi en tout cas dans la région de Dakar wala dans le département de Dakar. sa xel fii la war a dem allez dam leen fii la war a dem léegi nag loolu.